ci jamono boobu yàlla kontine kollerem abraham ba ci ku ñu wax muusa muusa yoonante bu mag la woon te yàlla bëggoon na ko yàlla yónni ko ci ay njabootam benn bés nag yàlla digal ko mu dem ci benn buur bu mag ci misira ndax génne waa misira waa israel ci buumu njaam bi ñu nekkoon misira te joxoon na moyis kàttan ak doole bu mu mën a dekkoo farawoon bi moyis demee nag ci buur boobu ci la daldi yeewi waa bani israel bi ñu nekkoon ci misira te yóbboo leen tey fu ñu wax israel